mbokki jullit yi ñu ngi ñëw ak yéen ci seen fukkeel bi tomb ci seen émission ad diinu wan nasiha ci Leuz TV mu mel ni jeexal nañ tey suñu fukki fan di fukki fan yi yi nga xam ne moom la ñu yàlla diggoon ci koor gi yàlla bu ñu ump euh, bokkoon ci nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ci ne na ngeen taxawal weeru koor wi ak ngëm yàlla gu mat sëkk taxawal ko ak def lu rafet ba mu jeex tàkk su ngeen ko defee man ngeen a jot li leen seen borom subhaanahu wa taala digoon kon liñ ci doon nab na bi mu néew mu bari yàlla nañu yàlla jotale liñ ci wut mu mel ni ñu ngi woon ci jikko yi nga xam ne moom la nit war a jikkowoo ci weeru koor ak bu dul weeru koor waaye nag lu nit di def ci lu baax lu ne nag dafa jaadu mu gën a rawati ci weeru koor kon di gërëm bu baax di sant ñi nga xam ne ñi ngi topp suñu jataay fu ñu tollu euh, di leen ñaanal yiw yal na yàlla def yiw ci yéen li ñu yàlla dig ci barke ak xéewal ak sutura ci weeru koor wi yàlla bum ñu ump euh, mu mel ni jullit dafa war a xëntewoo jëf ju baax ndax moo ko yóbbu nag fi mu war a àgg euh, njëkkante ci def lu baax ndax saabiqu ila maxfiratin min rabbikum yàlla def na njëkkante leen ci njëggal loo xam ne seen boroom tàllal na leen ko loxo weeru koor nag ci weer yooyu ci la bokk ndax dañu wax ne guddi gi nga sóobu li ko dalee ci guddi gi ba fi bat di sete xamoo ndax dana la fi fekk danga ko jeexalam déet kon bu agsee profitool def ca lan ca war a def moo tax mu ne baadiru bil amali saalihaati fitanan ka qitaa'i layli l muslimi ndax yusbixu rajulun muminan wa yumsi kaafiran wa yumsi muminan wa yusbixu kaafiran wa yabiu diinahu bi irdin wa min addunia nit mën ngaa xëy di jullit boo xam ne complet nga bi ngoon di jot nga tubbi dib yéeféer yàlla nañ ci yàlla musal mën ngaa gonti dib yéeféer bi jant bi di soog nga doon jullit dafa jara xàmme mbokk yi Euh, parce que kuy dund te seytaane bàyyeegu la te dañuy wax ni àdduna mi ngi rattaxee ni montagne bu kowe ñu solal la dàll yi tax muy sa bakkan laala ko muy bànneex bi ponkal mu tol ni iblis taxaw ca gannaaw ba max la la yàlla dimbaliwul doodoy moo tax yàlla wax ci alquran ne falaa taxurrannakum alxayaatu dunia wala yaxurrannakum billahi alxaruur na ngeen góor góorlu ba bu leen neexite àddina worloo wor àdduna léeg-léeg nga gis ci kum neex ba mu wor mbaa mu bew mbewte nag dañuy wax ne bàkkaaru mbewte ak dënge say ñaari wéyjur kooku moom yàlla du ko jéggale fii lay duma borom ndax boo ko seetee ci buur yi fi jaaroon ku mel ni firawna ak namruud ak ah, tabaarakallahu seen mbewte ga moo leen yóbbee ya leen daloon dal leen kon nag ñu di la moytandikuloo ne la na nga wattandiku ba àddina bu mu la bewloo na nga wattandiku it ba ki la yàlla booleeg ci àddina te yàqal la dong tax koo jóg bu la bewloo kon ayuhal muminuuna baadiru bil amali saalihaat qabla an yatiya yowmun laa bayun fiihi wala qullatun wala shafaatun yowma idin al amalu saalihu xayrun mimma siwaahu kon euh, jullit bi li ko war mooy fu mu dégg ne bu fa demee maa ngi fa yiw wu mën a jege boromam wala wu ko tax a jege boromam su cay dem bu tàggoon a fëx gis nga boo génnoon ci mbedd mi dégg ñu ne ñu ngi séddale fee xaalis booy dem xel ngay demee wér nga wéroo sa tànk bi day metti mettiwul da ngay daw parce que la ñuy séddale bugguloo ku la ci ëppale te yiw yàlla moo gën loolu téeméeri junni yoon kon nañ fëx wuti yàlla wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu nañ fëx wuti yàlla gis nga yàlla sopp na nit cofeel goo xam ne euh, suñ ko doon misaal dañ koy jox misaal rek ci jigéen joo xam ne da nga gis doom ni mu neexee ci xol sa doom dem ca école ba jàngi yàlla natt ko bi muy ñëw ak lii dal nit dal ko ngeen jéggal ma ci kàddu gi mooy mu yàq tubéyam gis nga buy wàcc xale yi niñ koy dawee ak nit ñi kenn du ko bëgg a jege waaye da gis ne yaay ji bu agsee day jël doomam fab yëkkati ba ca kaw su eggee raxas ba mu set solal ko jëneen tubéy xoolal cofeel googu yaay ji am ci doom ji yàlla am na ci nit cofeel gu ëpp googu kon dañ war a njëkkante ci lu baax lu jiitu bés di ñëw boo xam ne jaay du fa am jënd du fa am weccee du fa am ndax bis la boo xam ne bisu dawante la parce que koo xamun doo bëgg mu xam la bisu dawante la bis bu doom di gis yaay di daw doom gis baay daw baay gis doom daw yaay gis doom daw ndax kenn ku nekk yaa ngi daw sa morom toppee la àq joo xam ne xamuloo kañ nga koy mën a régler sa digganteek moom ak sa digganteem ak boroomam muy bis boo xam ne yàlla junj nañu ko ci alquran nag te ala kulli xaalin dana ñëw parce que mag mu toll ni yàlla bu waxee lam déclaré ñor na ko yàlla wax na ci alquran ne yow ma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran wa maa amilat min suuin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baidan lum ca teg wa yuxadirukum allahu nafsahu wallahu raufun bil ibad euh, mbokk yi yàllaa ngi ñuy artu ci bis boo xam ne te dañuy wax ne mag mu toll ni yàlla denc lu toll ni la mu denc te lim digge ala kulli xaalin dana am te kenn mënu koo teggi lum na la def ko war nga caa bàyyi sa xel yàlla nee na na ngeen wattandiku bis boo xam ne bu agsee kenn ku nekk ci yéen loo defoon ci lu baax danañ la ko jalal loo defoon ci safaan danañ la ko jalal moo xam mu rafet mbaa mu ñaaw te gis nga bu jëf ji rafetee macha allahu da daw akolaat jëf ji gën a fonkaat sa bopp xam ne yow kat doon nga góor góorlu ci li la yàlla sant waaye gis nga bu jëf ji baaxul dangay ngay ngéejoo jëf ji sore woon la ni penkook sow doo bëgg mu jege la fen dalay lay lëjal witt foo jëm mu jëm fa ñu tegal la sa bagage ne la feret ko yaa ko moom ah su boobaa nag mbokk yi su fa yërmande yàlla jiituwul dara du baax moo tax yàlla wax ne man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa aleyha waaye nag wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla nee na ku def lu baax sa jëfi bopp la yaa ko moom waaye ku def safaa nit sa jëfi bopp la yaa ko moom ñu ne fa dunya daarul gururul faniya inna al axirata la hiya daarul xayawaan law kaanu yaalamuun adduna mooy kër gu waraakoon gi nga xam ne da ngay gis xale bi juddu léegi ñuy yëkkatee ko tëral si tuuti mu commencé waaxu di daw si tuuti mu commencé génn kër gi si tuuti mu commencé ami bëgg-bëgg dem tuuti adduna gane ko mu man boppam bu defee ne ci man man man man man manam foofu la yem adduna da koy daal di wor seytaane jekku ko te nag su boobaa su continuer ca loola bu ko dee bettee maara day taali day daal di perte yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci ibnu omar mu ne dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis yonent bi jàpp ci mbagg yi ne nga ne ko na nga fuglu sa àddina ba bum la worloo nanga mel ni ku sóobu aw yoon feeg àggugoo bul jàdd na nga préparer sa bopp ci ñooñ waa bàmmeel gis nga soo ko defee da nga yëg ne da ngaa noppalu parce que di nga sàmmoon teg li la yàlla sant parce que bu la wóoree ne bisu tay bi amaana bala moo jeex sax nga ziyaare biir bàmmeel su boobaa danga préparer sa ëllëg ndax nag euh, dañuy wax ne koo xam ne xamagoo foo jëm te xamagoo noo fay demee préparation war na laa warulaa bett ndax nag borom téere ba dafay wax ne euh, bari na cam soo xam ne mi ngi dox di waaxuy dem wa kam min fata yamsi wa yusbixu daaxikan wa akfaanuhu mansuujatun wa wax laa tadri bari na ndaw loo xam ne bi mu xëyee mi ngi fëgg dënnam di dox di bonde di yëkkati ay mbaggam di wane na mu toll te fekk na magasin ba ñuy jaayee càngaayam mi ngi koy romb te yëgu ci dara yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi kon loolu moo doon seen fukkeel bi jataay ci seen émission ad diinu wan nasiha xam naa dañu koy yemale foofu ba ñu ñëwaat ak yéen ci seen fukkeel bi tomb ak benn euh, wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu ñëw ak yéen ci suñu naafilu fukkeelu fan bi wax nañu ne ku ci julli ñeenti rakkaa rakka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab jàng ayatul kursiyu jàng inna anzalnahu fukki yoon ak ñaar euh, wax nañu ne doo jóge fi nga ko jàng mukk lu dul ne dana am aji woote jula la woo ca asamaan si ne la ee yow jaamab yàlla bi yàlla jéggal na la say bakkaar waaw yi nga jiitaloon bi ngay dugg ak ci koor gi ak yi ngay waaj a def te defagoo ko bu ci bokkaale raxul ak tuur deret dereti jàmbur yàlla dana la bindalit ci toyaaba nga am juróom-ñaar fukki garaati siddiq da amit juróom-ñaar fukki garaati suhadaa u mooy ku dee ci toolu lislaam danga doo génn àdduna mukkit nag lu dul ne danga lekk sa meññentam aljanna da nga ramm ci sa xeet juróom-ñaar fukk ñoo xam ne safara ñoo ci waroon yal nañu yàlla defal dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fukki fan yi njéggal yi ci des yàlla nañ ko jotu te li ci yàlla dige ci njéggal yàlla nañu ca laafaale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant waa kër gi di sant techniciens yi di sant bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci diaspora ak ci biir réew mi wa rahmatullahi taala wa barakatuhu